maxarat bi mhm. ak tudd gi ñu ko tudd suñu Mbàkke Bousso mhm. yan ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam noo ngi sant bu baax cant koo xam gi boo amee tàmbali it amul fu mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal mbir mi melal ko ba mel nii ñu daje fi dajale fi ñii ñu fi dajale ba bu mel nii ba bi bii ak si tey ñu cërale ko sëñ Mbàkke Buso fi nga xam ne fi la toll ak sëñ bi ak fi mu jaar ak moom ak fi mu ko féete ci ci mën a tudd borom xam-xam yi tudd nañ ko bu ko defee nag loolu mënees na cee jànge loo xam ne lii lu baax rekk am solo ndax nit bu fi jógee ba am téeméeri at ñu di ko tudd di ko fàttaliku lu baax laa tax am na ñoo xam ne ñi boobee lañ fàttewoon te kenn tudd leen kon nag nanu yàlla saxal ci lu baax ñu dund ci liggéeyal Seexul ba am ngërëmam mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal bis bii nag ñoo ngi leen di ñaanal seen yéene ak seen pas-pas bii ñu amee yàlla na ko yàlla yóbbu fu ñu ko bëggee liggéeyal sëñ Tuuba te muy liggéey bu yàgg te ñu nangu ko te ñu dugg ci biir ñun ñëpp. tey ñaan bis yi ñu yàgg ko taxawal di ci fàttaliku ju baax ñi ndax lu baax dong nga mat a sonne ndax ku fi nekk bu jóge fi am téeméeri at ñu may lu baax yàlla na ñu teg ca yoon wa maa ngi nuyu Cheikh Mouhamadul takka ak ñi mu jaboote ñëpp te yàlla yàggal ko fi te may ko naal yi mu naal mu àggale ko ba def yeneen yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko def di jaajëfal Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ko fi teewal nga xam ne fekkoon ne mees naa wax dañuy wax ne nit fu mu war a teew teew fu bu fa doomam teewee ma fa te it loolu mooy li am yàlla na ko yàlla yàggal. liggéey bii ngeen xam ne moom ngeen amee ngang ko yor ko yit nag te di ko liggéey ci njabootu Sëñ Tuubaa gi tàmbalee ci moom sëriñ bi ci boppam liñ mën a xam ci moom ñu di ko xamle ñi ànd ak ñi àndoon ak moom it luñ mën a xam ci ñoom ñu xamle ko loolu fardu ni la na dee tax bu ëllëgee kenn ku ne yoon wa nga war a jaar wut lu baax ba am ko loolaa la koy may ndax ku xamul sa cosaan xamoo sa bopp day mel ni am sa bopp daa la jafe kon nag jaa jëf ci taxawaay bi ak liggéey bi yàlla na yàgg yàlla na yokk yàlla na jëm kanam damay bàyyi sëñ Abou Bousso imam mi mu dugal ci ay kàddoom kàddu yu cantam moo nekk imam fee ca Parcelles Assainies di jiite jàkkaam salawaatul xams di jiite jàkkay sëñ mu liggéey salawa euh, salaatul jumaa tawaat kàllu moom itam mën na wax ne lu baax amul luy mujj dikk gën a sew ndax way juram mes naa wax ne mooy caatum sëñ Mbàkke Buso waaye nit ñëpp yi mel lay tàmbalee ci ka gën a màgge ba ci ki gën a ndawe sëñ Moussa moomu mel na ko moom miitam itam fu ay atam aggutit yitteem ak taxawaayam ak liggéeyam ak na ñoo ngi koy jaajëfal te di ko jox kàddu gi mu dolli ci lim ci dolli ñu doog a dem